Sunubuzz TV HD ci toute l'actualité sunu buzz TV leen ak jàmm mbokk internet yi topp chaîne youtube bii di suñu buzz TV Abdoul Karim Gueye Cheikh Omar Diagne gannaaw rek ba ñu leen jàppee tegoon leen loxo ci luy waral euh, génnuk àddina Imam Ndao xam ngeen ni ñoom nag ay kàddu yooyu yoo xamante ni yëkkati woon nañ ko loolee moo waraloon rek ñu daal di leen di teg loxo ndaxte kat kàddu yi ñu yëkkati woon dañ si doon joxañ baaraam tuuma rek euh, nguur gi euh, génnuk àddina Imam Ndao ni laalee nañ ci ah, ba tax na nag ñu daal di leen di tegoon loxo ñoom ñaar ñooñu nag nga xam ne rek bokk na ci ah, bàyyi nañ leen ah, ni ki ah, tey jii ci suba gi Abdoul Karim Gueye Cheikh Omar Diagne waaye nag ci yooyu jamono sénégalais yi bëree bëri ñi ngi réclamé ñu daal di bàyyi rek mboolem ñi nga xamante ni ay activistes lañu wala bokk ñu nekk otage politique nañu leen bàyyi gaawee waaye tamit ki nga xamante ni rek mooy moom Papa Alé Niang nekkoon ci toggaanu xiifal moom itam nañu ko bàyyi loolee sénégalais yi ñu ngi koy demandé ba tax na sax ñenn ñi ñi ngi wax ni sax ndax dañuy bàyyi ñaar daal dugal ñett mi Ousmane Diagne ak ñamu àndaloon xam ngeen ñoom bërki démb dañoo doon yooxu naan nañu libéré Pape Alé ci noonu leen lañ leen jàppee patam patamee leen yóbbu leen est-ce que dañuy bàyyi euh, Cheikh Omar Diagne Abdoul Karim Gueye daal di jàppaat ñeneen euh, loolee euh, jamono ji moom mooy li nga xamante ni ñu bëree bëri gis nañ ñu ngi koy fësal ci seen page Facebook yi wala bokk ci lenn te ci groupe WhatsApp yi ñu ngi ko fay par mu nekk rek loo xamante ni jamono ji yéeme na lool ndaxte Sénégal li ñuy jàpp ci activiste te maanaam boo xoolee lañ leen di toppee dara jaru cee topp ak nit bari na lool ba tax na nag war nañoo xoolaat bu baax a baax teg loxo gi nga xamante ni ñu ngi koy teg loxo ñii nga xamante ni bokkuñu ak ñi fi nekk di gouverner gis-gis ci jàppin wu yomb boo xamante ni ngi leen koy jàpp. waaye nag dañ leen di patam patamee ah, yóbbu leen gis ngeen Abdou kii euh, usmaan Diagne ñi nga ko doon jàppee keroog moom ak euh, ñamu àndaloon wax dëgg yàlla ku seetaan vidéo yi xam ni njàppin boobee metti na lool lool lool ba àgg. Euh, foo xamante ni métti bi mënoo ko nattu ndax te nit boo koy jàpp itam ak lu mën di def rek war nga mën a respecter nit ki akam ak yelleefam waaye nag immaa ñëw toog si kawam di ko jàpp euh, di ko fitnaal ak yu ni mel loolee moom nekkul loo xamante ni lu jekk la lu rafet la lees mën di jàppagun daal jamono ji ñoom ñaar ñoo ne ñoom may nañ leen bàyyuk ndégandiku Abdoul Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne mbokk yi Sunubuzz TV la di leen dig daje ba ci kanam incha allah rabbi jaa jëf Sunubuzz TV HD ci toute l'actualité